ñii mënatuñ dix personnes dix personnes ñoom mënatuñ. Yes, mais grand, mais grand, mais nag grand, hein? La démocratie voudrait, ci nit di wax nga bàyyi ko moo xalaatam. Maa kii, maa kii, maa kii. xamal ni problème la dafay wéet moom dafay wéet comme gis nga ni dafay wéet. Sonko Sonko Sonko. dëgg la nga wax sa booy. non mais moom dafa wéet. daa wéet moom moom war ko bàyyi. mais moom non moom ba àndeeg tal soo àndeeg tal dañ koy bàyyi moom. Macky Macky Macky Macky Macky. Sonko Sonko Sonko. Macky Macky Sonko. Macky Macky Macky. Sonko Macky. sa téléphone. <laughs> kii dugal ko ci. <laughs> mais Balla man dama bëgg man dama bëgg mu. Ah, kii ah kii. kaay si moom la ah, amul lu wax. Ah, kii voilà métti na nag ndax malheureusement paa bi dafa bëggoon wax mais ba léegi jàllaa bi la sol dëkk bi jàllaa bi la sol di daw. waaw boo xoolee lu fi ne si dëkk bi. amul loo bokk kaay. boo xoolee lu fi ne si dëkk bi kaay ñëwal ñëw leen. nga jël nga jël ma wax la lu fi nekk si dëkk bi lépp muy ñooñu li ma wax la lu nekk si dëkk bi ma wax la lu fi nekk si dëkk bi waaw. lu fi nekk si dëkk bi jàkkaarloo caméra jàkkaarloo caméra ak léegi wax ma Sénégal métti na nag muy wax ngeen taxaw fi fekkoo lu mu la ni ñii nañ dem seen yoon nañ dem seen yoon nañ dem seen yoon ba léegi ba mais Ousse Ousse jël paa bi jël paa bi ak ñoom ba léegi ñoom bàyyiwuñ paa bi mu wax mais c'est extraordinaire nee na paa bi bëgg a wax xalaatam ñu ne ko doo ko fu waxee ah mais est-ce que li mooy démocratie aussi ak jàll bëgg a wax xalaatam paa yi bëgg a wax nag eh, ñeneen ñi yóbbuñ si wax Macky waaw <laughs> ah, vraiment vraiment waaw ah, waaw gars yi nañ ko xalaatam waaw bu ñu waxee seen xalaat yow nag foo faat yow man maa sonk de waaw. d'accord nga Pape. waaw waaw mais ku ne na wax sa xalaat am réew koy ñëpp ku si nekk daa war a gën wax xalaatam waaw góor góorgóorlu rek ci tournée gestu seen yi rek après ñu mën a liggéey Sénégal jëm ci kanam loolu kese la. moo xam lu mu lay mais grand mais grand kii nga moo tax ñu wax bandi la ancien bandi. kii daa daa fooyee ndawam ba mu jeex tàkk mu ñëw fii ba la ñuy wax léegi la ñuy wax ñun. ñoo gëmul dara lu ñu wax gëmuñu ko gëmuñu dara bëgguñu seen avenir gëmuñu dara ñun gëmuñu dara. Sénégal laa mel mais fii mais grand fii nee grand fii ah. waaw mais saa yi ñoo yàq. yéen a kii boo ko xoolee xam ne mën nañu maam. suñu numéro wu bàyyi la Sadio ñoo yàq réew mi réew mi xale yee ko moom ñoo koy defar. dara lañ gëmul gëmuñu dara. gëmuñu dara ñuy gëloo gëmuñu dara. gëmuñu dara ñuy seen. gëmuñu dara gëmuñu dara. voilà léegi xam naa nag léegi dañuy voilà man damaa bëgg xoolal ñu taxaw nga introsé ma ma wax lu tegu. ñooñu voilà loolu laa bëgg il faut ma poser les questions. en direct. alors le fait d'accord le fait bugaan nga bugaan nga bugaan nga à 100 pour cent mais dégg nañ bugaan bugaan dégg nañ bugaan day sonk sonkul am ñu naan bugaan day sonk sonkul. yow mi nga xam ne yow partisan partisan bugaan nga am ñu ne bugaan day toppandoo sonk voilà. waaw ñoo Bougane Sonko moom. non nit ñi bu noppil doomam aqin la Bougane Gueye Dany Sonko papaam aqin la Sonko lu mu koy jëriñ papaam ak yaayam jëriñuñ ko loolu na ko jox cër. voilà léegi wax nga ba pare léegi man Bougane. ko mu wax après ngeen wax. bu dee mais grand <laughs> léegi man bugaan la cent pour cent parce que li bugaan di teg dëkk bi daf ñu intéressé mu nekk la vérité parce que bugaan dëgg rek lay wax lépp loo xamante si nii lu lënt la bugaan daf koy leeral te bugaan lépp lu muy def jub moo ko ci ñor ak dëggal ak leeral ñi des nag ay tappale moo leen ñor doomu aadama nag bu demee ba lu mu wax du dëgg day tappale kooku c'est pas ñi di ko jox seen kàddu parce que ñun bugaan topp nañ ko li muy wootee gëm sa bopp tàmbalee zéro ba yàlla def mu agsi fii mu agsi ñun bugaan rek la ñu gëm bugaan rek la ñu gëm parce que ya yaa mille bugaan yaa mille bugaan mais ñoom ni ñuy mais yaa mille bugaan mais ñoom ni ñuy taxawee yaa mille bugaan mais ñoom ni ñuy taxawee di ko appliquer ñoom ci seen parti bi mu nekk loo xamante ni du dëgg ñun yooyu moo ñu intéressé wut mais grand. ana grand bi. waaye mais xaaral mais grand. mais bi li mu rëy rëy kii rek moo fi ànd ak bugaan ngay def. dellu siyaar bu sànq loo wax. bon dama bëgg a wax comme genre bugaan gay dan yi nga xamante ni ñu ngi nekk ci Sénégal di influencer jeunesse bi ñun bugaan gay bugaan dégluwuñ ko bugaan li muy wax duggul suñuy nopp ñun xama kan lañ gëm xama kan lañ gëm Ousmane Sonko moom la gëm ndax gëm naa ni man moog man man aw ma aw ma yàkkamti ci àddina maanaam dama gëm ni tôt ou tard réew mi dina neex ñoom ñu ngi ci dynamique boobu noonu tey manqué wuñ or manqué wuñ jamaa manqué wuñ zircon manqué wuñ dara loolu yëpp sàcc yi ñoo ko bëggoon a jël aki moo ko tey bugaan ñëw na leera kii Sonko ñëw na leeralal na ñu yoon bi carrément ba ñu xam fu ñu jëm jeunesse bi ngir yàlla ak yonent bi bàyyi leen di dugg ci gaal yi di dem ñun dañoo war a liggéey suñu réew ñun jeunesse bi ñoo mën a liggéey Sénégal gi nga gaal yi ngeen di dem ne fajul dara tey da ngay dem ba Europe ñu indiwaat la amul sens li ñu war a liggéey ñu ngi fii Sonko mu ngi fi Jomaay mu ngi fi ànd ak ay ministres yu nga xamante ni ministres yu dëggu lañ tey pare nañ pour liggéey ñun jeunesse bi nañu bëgg suñu bopp ñu toog liggéey nañu bëgg suñu bopp ñu toog liggéey dañu war a liggéey li ñu war a liggéey mu ngi fii Sénégal ñun jeunesse bi ñun ñoo war a porter espoir boobu noonu nañu liggéey ngir yàlla nañu liggéey nañu liggéey ngir réew mi nañu jàppale gars yi ñu liggéey ngir réew mi nañu liggéey. kon nan bàyyi daf ne olof Ndiaye daf ne. kuy jëggaani. ma ne kuy jëggaani ku ne. sa dëkk moo neexul. parce que boo takkee jabar joxoo ko mu lekk dana dem dana tas ñibbi. dëkk bee métti. liggéey amul. léegi yow nga yor baay yor yay yor say rakk war a boot sa ginnaaw. kon force ñun ñun c'est pas pour Sonko. Sonko moo yàq réew mépp Sonko moo yàq réew mépp loolu la askan wi nangut a dégg mënul bëgg na mais mënul doomu aadama nag bu bëggee ba pare mënul day bàyyi ki man jël ñun bugaan la ñu gëm moom la ñuy topp ñun gëm sa bopp lan 100 pour ñun waxuñu pour diw waxuñu pour kenn dañuy wax pour li am Sénégal Sénégal depuis 1960 ba léegi nekkul ci règlement bu baax est-ce que dégg nga li parce que ku ñëw ku ñu fal am ci yow yaakaar boo ñëwee boo ñëwee day gën a pour quoi pas nga bëgg a fal nit 12 ans 12 nga fal nit mu bëgg nekk nekk milliardaire kooku sàcc la milliardaire ku ko bëgg a nekk ci 12 ans li ngay liggéey lewul ñun dañuy wax rek pour d'accord nga Macky Sall dégguma baatu campagne baatu Sénégal la bien sûr doomu Sénégal. yoo xam naa bu koy teg nag dégguma. yoo xam naa bu dafa nekkul ci yoon yoon dal ci kawam bu ci yoon yoon dal ci kawam dama ne la réew mi ñëpp a ko bokk amul bàyyi kenn amul yaayi kenn nit boo ko faralee da ngay ànd ak moom pour xel mais ànd ak moom pour ci dama ko bëgg pour sama xol rek loolu du àdduna du àdduna ñun bañuñu mu ñëw ci réew mais bu ñëwee bu nekkul ci yoon ñu teg ko Macky Sall bañuñu ko de mais maanaam Macky Sall bañuñu ko de mais na ñëw rendre compte xaalis bi mu yoroon durant toutes ces années. xaalis ñun fii justice moo fi nekk ñun